Euh, yaa ngi may wax léegi ci njëlbeenu euh, émission bi nga naan ma ñi la xamul nañ la laaj euh, Malick Gakou wala ñu laaj la Idrissa Seck laaj la pap Diop wala ñu laaj la Ousmane Sonko yéen anecdote nga seqoon ak ñetti leader yooyu nga filim ku ci njëkk di Malick Gakou. Eh, xam nga bokk naa ci ñu ëpp information fii ci Sénégal. ci New York. waaw fii nii ci New York. Mhm. ñi ngay gis ñi fiy wax ñëpp rajo yeeg ñëpp. Mhm. bokk naa si ñu ëpp ay information mhm. ci ci ci ci ci moo xam ci gouvernement bi. moo xam ci opposition bi. ci gouvernement bu Sénégal wala bu Amérique. Amérique Sénégal opposition bi yëpp. Sow Malick Gakou ñëw na fi di def euh, campagne. Euh, toog def meeting. ma toog comme ni ñëpp toogee laal sama micro toog jàpp sama njaamur. Mhm. laaj ko question question bi affolé ko. ban question la wax non question boobu bëgguma si delluwaat parce que. bu bu non non c'est que c'est que problème bi mooy que ni. jàll na mais mi ngi dem mi ngi demaat campagne. pour ñu xam réalité bi ñun ñu fa nekk lu wala ñu ngi seetaan li may problème bi mooy information boobu noonu. Hmm. dafa nekk information boo xamante ni. journalistes yi nekk Sénégal sax amuñu ko. mais mënoo ko codé. mën nga codé information wax loo ko bañ a wax mu dérange mën nga mën nga utiliser langage. nekkoon na fi nekkoon na fi ministre n'est-ce pas. yeah nekkoon na fi ministre yeah. li li ko fi li ko jëlee ci ministre ministère ba laa ko laa question. mais dañ ko dàq rek ministre. ministre la woon ñu dàq. <laughs> déedéet <laughs> non loolu kenn dàq. non that's it dañ ko dañ ko dàq en tant que ministre. non non bu ñu bu bu ñu bu ñu wàccee. non non kenn dàq ko. Ah, kon nuñ ko def. <laughs> nañ bàyyi noonu rek. non non non juste pour. informer moom kenn dàq ko moom moo déedéet kenn dàq ko. <clears throat> kon luñ ko def buñ ko daax ministre kay décret lañ koy falee. suñ waaw décret lañ koy fale waaw après buñ buñ beneen décret dàq ko wala ñu. mais yow buñ la buñ la buñ la taajalee añ. waay. tegal la bool bi teguñu ndab bi amul dara. Mhm. nga tijji ko fekkoo ci dara looy def. ah damay jug dem ah. waaw noonu la demee. maanaam maanaam wax loo miin foofu war miin. <laughs> non def naa ci code. li ma wax ñi may déglu auditeurs yi da nga ne dama ne la buñ la taajalee boolu añ nga tijji bool bi fekkoo ci dara nooy def nga ne da ngay dem yeah damay dem waaw ñu noonu léegi ça veut dire ah ça veut dire que ni loolu code la ku ko mën a lett la ku ko mën a firi rek wax jaa ngi noonu maanaam comme man bàyyi ma tekki léegi gannaaw yow da nga ragal a wax man ñeme naa wax <laughs> non ñe du ragal a wax damay bañ ministre damay damay amul bureau ñu daax ko loolu nga bëgg a wax amul bureau moom mu gedd ah. mais kon daaxuñu ko <laughs> non loolu li lépp lépp a ngi ci biir amul bureau ngi ci biir toog toog toog te liggéey loo wuñ la mi ngi ci biir. bref joxuñu la dossier mi ngi ci biir. ok euh, you know. bii moom amul info. ah nga ne euh, yaa ngi dégguma nga ne ma ne bii amul info fi dara. non non non parce que hmm? parce que que bëgg nga ma wax ah, mu ne ma. waxuma ngay moo tax nga ne aw ma info. mais dégguma dégguma dara. waaw dégguma loo lu ma mën parce que waaw li nga wax nii li nga na ma laaj non nga wax nii je li nga wax nii je suis d'accord. info mais. def naa ci code parce que la moo tax mooy que ni damay sóoraale ni Malick Gakou tamit sama sama sama sama nawle la sama sama sama sama frère la. sama père la. you know comprendre d'accord que xam nga tey mi ngi mi ngi ci yoon. ok politique am jeexagut. d'accord mën na poser waat candidature. mais question bi daf ko touché woon wala moom. da koo touché da koo touché que li tax mu li tax mu tas meeting am. Mhm. ndax question boobu te ah, temps am jotut. ah tas. ah kon question bi. li may wax Bijou Ngoné fekkee na ko. Euh, question bi grave woon na de kon. non man tamit yow tamit da nga duggoon ci vie privée wala. non non non non non non non non ci cadre politique la woon c'est que comme comme comme man comme comme man samay samay question ok <laughs> moom gars yi. Ousseynou eh, mais <laughs> yeah yeah yeah <laughs> uh, uh, uh, yeah say ATM. ATM ATM. thank you guys. I just want to know. Yeah. If you're doing bad, I'm always here for you. Look me up, Rom Tom. I do inspiration. Thank you, man. ayca noonu non mais loolu bisu ngoone fekk na ko fi. Hmm? maa ngi nuyu moom en passage bu baax nu bisu. Hmm? dëgg yàlla. Hmm? Euh, fekk na ko fi. te am na lu mu xam ci question bi itam pertinent na mais. Euh, lu amoon la parce que man noonu la ma yàlla bindee. samay question dama koy préparer du ma nekkuma nit yi nga te ni dañuy ñëw rek toog di wax naka saxandang li may source yu leer laay wër. su ma ko amee moo posé la si question. Euh, Malick Gakou itam wax dëgg yàlla euh, posé naa ko question perturbé na ko dem na ba benn instant mënatul encaisser beneen question nag question bi ma ko posé <laughs> mu tas mi di ngam dem. <laughs> loolu la rek mais maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy ziaraat bu baax naa ko xam sama liggéey laa doon def rek maa baax sax moom xam nga moom sunu sunu Malick la quoi. parce que maa bi laa koy xoolee privé mën nga ma ko wax mën nga si sama biir carrière rek pour nga. nga xam ni waaw fi jaar tey dafa mel ne du question de ragal ok du question de ragal man man man. man dëkkuma Papa Diop Papa Papa Diop moom li ma ko posé moom euh, mooy moom moom mën naa ko wax. ok parce que loolu euh, ancien maire de Dakar la. Mhm. so Papa Diop dafa ñëw euh, wax ci wax alal genre yooyu noonu. Mhm. dugg na fii génn fële même Malick Gakou am na benn question mën naa ko wax. Mhm. parce que dafa ñëw ne xaw ma Sénégal milliardaires fa nekk. Euh, genre yooyu noonu moom Malick Gakou. Mhm. di wax ne milliardaire dafa nekk genre yooyu daal def ci ñoom sàng leen dëru béy daal. Mhm. ma ne ko mais yow sa mil sa milliardaire dañuy jékki-jékki rek dégg ko te xamuñu fan la jóge mhm. so boobu boobu sax pertinaawul boobu sonalu ko. mais bi ko sonal boobu mooy mooy mooy. nangoo ñu ko wax kay. <laughs> bi ko sonal moom laa mënta wax mais Papa Diop bi ma ko laaj mooy que ni. Euh, dafa ñëw moom tamit di wax waxi xaalis. ak yooyu noonu. Euh, ne réew mi bu ñëwee xaalis bi nii wax wax yoo xamante ni. Mhm. ci comme genre comme te ni. Mhm. tey dina am kaaraange ci suñu alalu réew. Mhm. léegi comme nee na tudd na kaaraange alalu réew mi. man tamit ma daal di koy laaj ne ko. amoon nga benn problème boo xamante ni si sa biir kër. en tant que président Sénat. sa doom. Euh, euh, maa ngi ciy jégul sax parce que loolu dafa xaw a privé am ak euh, dil yu mu teg ak gardien mhm. ñu dugg si biir dajji coffre-fort bi. Mhm. sàcc fa xaalis ma ne ko kaaraange gi nga ñàkk foofu sa kër est-ce que tey mën nga ko mën nga ko am si sunu si sunu euh, alalu réew. Mhm. so loolu laa ko ci alalu euh, kees bu bu ah. ville de Dakar boobu alalam lañu sàcc. léegi nga jël référence yi. ma jël référence moom tey ku amul. muy laaj ok ku amul ku amul kaaraange sa biir kër. ndax mun nga am kaaraange si suñu alalu réew. Mhm. léegi après réaction. léegi réaction bi mu jis boppam. mu mer daf la mhm. saaga wala daf la. non non non non non non Papa Diop nit bu nit bu nit bu responsable la. Mhm. Euh, maa ngi koy nuyu sax en passage wax dëgg yàlla. même bi may laaj question bi sax bi ma tuddee. automatiquement question bi ñi nekkoon ci salle bi xam nañu direct fa ma jëm. Mm. dañ ma bëggoon dañ ma bëggoon stabé ma téye sama micro comme ni ma téye sama micro bi taxaw. Mm. Euh, moom moo leen mujj wax ni leen bàyyi leen ko mu laaj question bu mu bëgg laaj. Mm. Euh, moom it maa ngi koy sant ci loolu bu baax a baax parce que foofu wanee na responsable bu baax a baax. Mm-hmm. waaw waaw ah, quatrième bi nga ne Ousmane Sonko. ndax da a mas a. bi Sonko. non euh, troisième non quatrième bi moom Sonko. Euh, maa ngi nuy en passage sama benn grand bëgguma tudd turam parce que bi may defloo loolu bëgguloon ma tudd turam. Mhm. Euh, comme man sama ah kon dañ la ko defloo dañ la yónni. non. yaa ko wax de. non mais bu li may li may defloo dama ko waxagum. ah mais ok. voilà ah! si on peut attendre quelques rek non li ma def loo. ok loolu tuddaguma ko. maanaam ça veut dire yow bi ngay def mission yooyu nit moo lay jox benn question. non non non non non non boobu du question. ok boobu lan la woon. boobu comme man posé naa question. yaa ngi xalaat di comme man posé naa question Malick Gakou. Mhm. posé question euh, Papa Diop maire de Dakar. Mhm. déjà ñoom jàll nañu Sonko moom moo si topp ñee dañoo teel a am seeni i garde teg. Mhm. ok uh-huh. léegi dama dem foofu. en tant que koo xamante ni damay def live Facebook jamono yooyu man mun naa ne bokkoon naa ci ñi seen Facebook gënoon am doole boo ma boo tuddee Assane Diouf man nga ci doon teg. à l'époque à l'époque hmm? bi ma demee te bi ma demee te bi ma demee ba laal live euh, Sonko boobu Assane Diouf sax man li ma laaloon live mënu ko woon am. parce que moom au moins dañoo yem ay 5000 mais bu ma laalee live bi parce que euh, kenn ku bokk si Sonko moo ne ma. Mhm. léegi mun nga dem euh, laaj sa question maa ngi lay ziar papa. Mhm. mun nga dem laaj sa question yëpp. Mhm. ah mais euh, damaa bëggoon nga defaral ma live ci sa Facebook. ci Sonko. ñu waxtaan ma ne ko waaw mën na nekk. ñu waxtaan mu def code ma laal weccit dugal sama poste dem def live. live boobu nag dama ko defoon grâce ak moom. ndax kooku sama grand la en même temps. loolu léegi ma def live bi live bu yegg presque ay dix mille personnes. boobu page Sonko bi ngay dégg nii bi ngay gis nii ñu siy def live. Mhm. yàlla rek moo tax ma wax boobu trois mille personnes la mhm. léegi gars yi ne damay fay live bi foofu lañ njëkke mais nga yow. waaw pour man ma ah. arrêté quoi. Uh-huh. ma ne leen duma ma léegi coow li jug New York taximaan yi fi nekk ñëpp dawal seen i taxi ba si bunt bi ni leen booy bi du arrêté parce que ñun si moom la ñuy seetaanee. Mm-hmm. ma continuer ñu jël liste ne dañuy bind ñuy laaj question. ma jël bic bind liste bind ci liste bi maay premier nit bu bind. mais bi ma bindee après ñu ñu ñu ñu ñu topp ma noonu la ñuy toppee euh, di ma tëpp di ma tëb di ma tëb di ma tëb parce que comme ñoom loolu seen seen i. parce que nag yaa yaa yaa fi ñëw perturbé Pape Diop. perturbé waaw waaw waaw loolu loolu mooy problème bi. léegi ñoom tamit wax dëgg yàlla ñu def seen stratégie. xam nga euh, mbëru làmb buñ ko jekkoo euh, mu xam ne dañ ko jekku day créer ni dama feebar. li ngay xam ni ban année la. boobu <laughs> ay deux mille vingt j'espère que ni ay deux mille vingt yooyu la. ok ok. léegi après mujjoo posé question jour boobu. non mujj ma posé question kon jotoo perturbé Ousmane Sonko. non boobu <laughs> perturbé naa ko parce que parce que nanguwuñ ma posé question loolu rek perturbé perturbé la. ok <laughs> ah. ok parce que bu fekkoon ni tey ñoom euh, ñeme woon nañu li ñuy def dañ may bàyyi ma posé question. Mhm. te pourtant peut-être question bi mu dem posé Sonko. Mhm. mu nekkoon na question bu ko arrangé. ok